mbokki internet Baol TV pël bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal tey nag ñu ngi fii ci arène nationale fas yéene teewee li nga xamante ne mooy euh, rent DKR ñoo fi woote ku ci mel ni Alain Pape Sarr Jimbo ñu tëgg fi ay combat yu doy waar combat yu neex lool macha allah ma ànd seeg Kader sama caméraman bi Kader xam naa dañuy dem xool ambiance tey lii xew fii ci arène nationale bi macha allah bu ko defee ñu jox ko amateur yi jox ko ñi ñuy seetaan à travers Baol TV di jaajëfal Moustapha Dalavé Kañu Soose nee naa la saa bu ma sañsee rek moom la Kader tey moo génn ak man dàll yi nag Omar moo ci génn sama doom baay muy Omar a ah, ñoom ñëpp ñu nga marché joor yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla wéral leen yàlla yokk place yi. loo filmé wul baaxul waaye bu gënee gaaw rek gën maa neex ñu daal di dem. mu ngi noonu nag di leen nuyu bu baax a baax yéen ñu topp ci Bawal TV di leen bëggee mbokk yi troisième combat de la soirée diggante Laurent Etienne Ndiago borom Ndiago or bi ak Boy Plateau. xale fas bennoo ba arbitre baa ngay wax ak ñoom ku ci nekk li arbitre nangu ak lim bañ règlement bi li mu nangu ak lim bañ mu mel ni loo raxa dafa xawoon niin ñu ngi koy fomploo yaram ba combat baa ngi noonu combat bu bëri coow xale yi ñemente waaye mu mel ni bataille psychologique bi Laurent a ko yóbbu Zora combat moo ubbi buntam mu nekk premier combat am waaye ñëpp ràññee ko ci ay kàddoom xale boobu di Rakhou Liss Ndiago at mi nee leen ngeen ñëw daa ñuy xëccoo de at mi baa ngay wax ñoom. avertissement pour Laurent deux avertissement pour Laurent bu ñettee nga ñàkk sa combat bi ñu ko moyoon pour cumukaayam mu def ay déwéy def da koo romb. mu ngi doon nag dimanche 10 octobre 2021 Rens DKR. Boy Plateau ak Laurent Boy Plateau sànni benn coup léegi waaye dalul ñu ngi noonu nag Leewtoo baa ngi noonu Laurent mépp na léegi waaye demul Laurent Boy Plateau fas benno ñu ngay Leewtoo ñaari combat bu ñëpp di xaar mën naa ne combat bi ñuy xaar la woon. xale yaa ngi lewtoo Laurent ah Laurent Laurent na léegi waaye dalul Laurent mépp na xale bi dellu ginnaaw Laurent Boy Plateau dooraat na léegi waaye yeggul Laurent door na waaye door bi dalul Laurent Boy Plateau Laurent songu na Boy Plateau daal koy riposté Laurent Boy Plateau Laurent Boy Plateau laa ilaaha illallaah doorante nañ Laurent door na Boy fayu nan ko 1-1 la Laurent Boy ñaari xale yi macha ku ci nekk préparé nga combat bi jox nga ko cër xam nga fi la mën a yóbbu. Laurent Boy Plateau. coxaasaat na léegi moom Laurent. Laurent coxaasaat na. mu mel ne Laurent xeex la woote Laurent door na. méb na mu sëgg mu daal koy door daa mel am na ko paa. Laurent Boy Plateau. Laurent Boy Plateau. dooraat na Laurent day door di arrière Boy Plateau di ko topp si Laurent door di arrière Boy Plateau di ko topp si arbitre bi woon na leen gi Laurent Boy Plateau Laurent mépp na léegi waaye demul Laurent dooraat na waaye lii Boy Plateau sàcc ko waaye demul lii Boy Plateau Laurent laa ilaaha illallaa Laurent daan na Boy Plateau waxoon ne ko jour booba doo bëre doo xeex may bëre may xeex laa ilaaha illallah loolu njaago njaago or loolu daal Etienne booy plateau loolu daal plateau xale la ñaari ndaanaan eh Malick cokkaas Malick Ndiaye cokkaas na maa ngi gis Malick Ndiaye mi daa mel ni fàttewul arène nationale waa rent DKR ñoo fi woote mbokk tey la 10 diggante Bou Siteu Malick Ndiaye fu ñu ngay lewaatoo Malick Ndiaye booy xool takut gàllaaj benn la ta <laughs> waaw waaw Malick a lii <laughs> diggante ñaari xale yaa ngi ci géew cokkaas Bou Siteu Malick Ndiaye 137 fu luy ñoom ñaar ñëpp ñoo niroo ngemb ngemb bu xonk lañ ngemboo Bou Siteu mu ngi ci takk ay sengoor jiital lu noir grisaar nee na daw te diggante Bou Siteu. Malick Ndiaye. <laughs> Malick Ndiaye dóor yi dóor da koy téléphoné. dóor yi koy yóor. Malick Ndiaye 137 fu Bou Siteu mbaa kaaw du mbaa dóor mu daanu do wayaay yooyu li kenn gis diggante Bou Siteu Malick Ndiaye 137 fu mu yéen <laughs> kenn mësu koo gis. buus waaw waaw arbitre day sifflé. bu Siteu Malick Ndiaye roofo waaw waaw ee eh, Malick mi kafu de rokos doorante laay lay la laa Malick bu Siteu daan na ko bu Siteu daan na Malick Ndiaye bu Siteu daan na ko bu Siteu daan na ko de obale ak Pape Yékini ñaari xale ñu ngay lewaatoo jaleñ jaleñ bu mag diggante Pape Yékini ak Obeuly waaw bu mel ni xaw na te waxuma woon lii bu waxu la lii Obeuly dal ni woon day cob waaj woon ma yaawu jaar booy dem booy loo yóbbu mu ne ma lépp bu sosa waaye yaawu jaan mi mat ci gémmiñ nag. fi nekk eh, luy xew. mbaa eh, takk na ko dalay daan laay lay la laa. Ibou Ndiaye Obali doomu Diofior bi. doomu doomu Diofior bi takk na ko. a Pape a nga xamale Pape Yékini ñetti defet la tegle nii. looy ne la ah, naa la buy door day juweloo. moom jël ko a ëmbali. nañ ko kar bay. ala waaw sant borom bi bu baax. da ngaa eh, indi kalandoo bi kalandoo gàllaaj rek mooy indi. da ngaa indi kalandoo gàllaaj. naa la bu indi indi nga. indi ma gàllaaj. indi moom nga indi. indi ma dara. yàlla rek la ñu indi. <laughs> mais ñu ngi ñaanal nag ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñaan yàlla nag combat bu ñu dese nii euh, combat grand prix bi suñu borom defal ñu ci ndam euh, kontaan nañu waa Diofior waa réseau de Fatick gis nañu taxawaay bi gars yi taxawaay nañu dëgg ci bés bi ko demal nañu bés bi te lii la ñu soxla woon quoi. chante. Euh, Ibou Ndiaye waaw maay bëre ah? la set. gis nga moom laay waajal ni ci préparation laa nekk euh, di woo fan si nag di woo ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi le novembre bi. fàttali ñu yaakaar yaakaar nañu bëre le 7. maa ngi Rino Seres Rino Seres grand combat la quoi. waaw kon bi ci lay ñëw. ah bi ci lay ñëw. adil loolu. <laughs> te néew ma dara. sa diggante gi bu ñëwee. ah. sa sama grand frère la. sama grand frère la ñu dund lu rafet nag moo tax tamit bu amee bés dañu ko taxaw ko am. ñu gis ne bu ngeen dajantee bi ah? ku njëkk a keneen ki day ñibbi lan moo waral. waaw déggoo rek ndaxte loo lépp si déggoo la xej waaw. noo gisee ah? moom neex na trop bésu Pape bi moom mention spéciale pour Pape bésam bi moom neex na trop billaay nga nekk xale ah. nga nekk xale di pourve jox la meilleur lutteur si simple bi ah. nan nga ko dundee succès bi daa yokk wala daa wàññeeku wala lay yokk non ndaw man nag euh, leneen nekk na ci man man du ma dund succès quoi du ma dund succès gëwuma loolu euh, neex na ma trop doon meilleur lutteur si saison bi mais suñu ndimbalu yàlla la du question ñoo mun gaay ñoo dàq gaay bëri allez mais ndimbali yàlla la loolu la. merci waaw kay merci beaucoup. bi cible na le de lutte Boy Niang Eumeu junior écurie Mor Fadam Guédiawaye ak Pikine attention ñoom ñaar yëpp pied gauche garde normal combat buy amul round d'observation xeex mbaa rëpp du am mbaa réelu am mais Kalmundour moytul ma Eumeu Sène junior Eumeu junior moytul Kalmundour attention poids lourd ak ki nga xam ni la mais tamit poids lourd la Calme Ndour dañ ko xam ci mbapat lu simple lii arrangé na ko lii bëgg na ko mais ndaanaan ngay bëreel Eumeu Sène junior ndaanaan la combat bi bu ci kenn parier lu ne mën na cee xew attention Eumeu si junior joxe na wet est-ce wet gi baax na Calme Ndour tegal na ko chaise daan na ko attention laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dafa defee ne woon action bi jeex na te jeexul Kalmandour ndax na la Eumeu si Junior nax na la ndax na la xoola coach bi xoola coach bi laa ilaha illallah wee ba action bi jeexagul woon dafa defe ne woon combat bi jeex na saa waay jéggi ko dafa expérimenté non dafa am expérience na non wax dëgg yàlla am na expérience ndeysaan oh Kalmandour jaaxle na mi ngi ci. laay lay takk wuli wuli Adama Diouf Adama Diouf daan na wuli oh Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf daan na wuli Adama Diouf. Adama Diouf mooy vainqueur Wouli Tay daan na ko eh <laughs> Papa Diouf ndeysaan fair play ñu ngay fair play ndeysaan wuli Adama Diouf lii rafet na ndeysaan naanaan ñàkk na tey jëlal ma loolu Kader ndeysaan man bu jooyee rek ma jooy dama gaaw a jooy naa entraîné naa ñaan naa bëre naa yàlla may ko na ko ndam nga koy dégg. mais benn instant yaa man tey sax damaa ñëwoon jël du son ak moom parce que ñëpp dañu waxoon ne moom tax a bëre moo tax bi ma songee rek naa. ma ma way merci ma bëgg ñu contact bi ñu bëre mais nag. mais bu laaw ci la rek. non man man. jàkkaaru mbor lañ la war a wutal pël. sa rafetaay bi doon na fi ci lamb ji lombe te dàq rek nga fi nekk dàq bàyyi yooyu. man moom pour man moom pare na man takku ma wax naa la doyal na. non doyal na. félicitations. merci beaucoup. waaw ñu ñëw si combat li ma la waxoon rek wax naa bu yaroo a tengaral bu yarul yoon ko affaire bi. nan nga bëree moom. non li ma ko njëkk a dama ko njëkk door mu fayu ma bëre. da ngaa ko njëkk a door mais loolu yëpp rek aju si kaw. waaw jokkaas mu ñëw mu wàcc moom nag xoolal wutul dara ay coup ba nekk door coup ba yooyu rang rang rang yooyu doxul. waaye ban dal loolu daa mën a dal sax nii lay def nii daa mën a dal man jël ma di gume nii de waaw. la ko maa ngi koy yàlla borom xol bu rafet na. mais entraînement bi lu ko waral wulee ko waral wala da nga cee nekkul. entraînement yi. non keneen dootuma jël ñii sax dañ may sonal quoi te amuñu xaalis. léegi ñan ngay jël non fonkal nañu wutal bu saf. kan la comme kan. non xa boo laajee mag dama jox mbër. liiru jaan nag. non liiru jaan fan añ yow sax bëgguma bëgguma doon de ñooñu weruñu. Eh, eh, non dama yàlla baal quoi. nag ya non non loolu dootuma jël jël wax. moom newoon na boo daanee. saa waay taluma lu may seetaan hôpital taluma ko taluma loolu ah. xool ma lu may seetante hôpital Paul bu ma sonal waay Paul yow mu toll ma loolu waay mu aatu loolu waay kii Babacar la sama xarit. diggante maar la ne ko réel ndeysaan le 10 octobre 2021 fii ci arène nationale waa rent DKR ñoo fi woote woon Alain Jimbo Pape Sarr ñu ngi leen di diggante maar la ak ne ko combat bi ñëpp doon xaar Marley mu Moustapha Darame Darame gàññi soose borom marché Dior ne ko réel moo ñëwoon ginnaaw Marley moo ñëwoon kanam ñu ngay lewaatoo ñu xool luy xew diggante ñaari xale jàpp hee Marley sol na ko takk Marley takk na ne ko réel ndaama la oh luy xew Marley ne ko réel Marley laa ilaha illallah ñaari xale Marley ne ko réel luy xew eh yow ñaari xale ay ndaanaan lañ de Marley bi kafut de waaye ne ko réel lu de takk Marley lu bëgg laa ilaha illallah ñaari xale yaa ngi bëre man la encaissé na coup mais teewul daa gën a taxaw gën a dëggal boppam Marley ne ko réel diggante Marley Marley ee eh, luy xew Marley ne ko réel Marley ne ko réel Marley oh oh Marley Marley daan na Néko Rél Marley daan na Néko Rél Marley daan na Néko Rél pour pour Marley daan na Néko Rél Marley daan na Néko Rél la ilaha illallah dama dama nekk ci yoon bi mooy xew yàlla ñun la dogal ñu xew. Eumeu Sène Eumeu Sène daan na Bou Siteu daan na Lac daan na Marley daan na. Eumeu Sène moom coupe bi Yékini Junior na yow na bëri Yékini Junior ma Eumeu Sène bàyyi na may may booy sens. barke Aïcha Kader mu ngi noonu. ay waay ayca mbokk yi jërë ngeen jëf ñu leen di jaajëfal di leen kontaanee ba tax na li amoon tey ci arène nationale bi diggante Kalma Ndour Eumeu Sène Junior diggante Laurent booy Boy Plateau diggante eh, ki nga xamante ne mooy Ibou Ndiaye Diofior Oboli ak Pape ni ñaari mbëri tey jii nii am na nag ñu ci am ndam am ñi am défaite ku ci daanu rek ñu ngi lay encouragé ñi nga xamante ne ñoo ci daan ñu ngi lay félicité di leen xamal ne que làmb noon la kuy bëre mooy daanu ñi daanu ñàkk ñu jom ñi daan yàlla moo leen dimbale làmb noonu la di leen ñaanal jàmm di leen wax ne que yal na leen yàlla taxaw daal suturaal leen ah te mu bañ leen def benn problème wax dëgg neex yàlla ay jàmbaar ngeen ay ndaanaan ngeen ah rawatina ku ci mel ni Kalmu Ndour bañ borom mar waa mar yëpp ñu ngi sa ginnaaw mais nag des fois sooy bëri ax maanaam koo xamul da ngay tey nga liir làmb ji ngeen bàyyi yàkkamti xam nga bàyyi prib bi yooyu bàyyi leen yooyu yéen ñëpp ay xale ngeen nee naa leen lépp ay génération génération ngeen ma àndoon si ak Kader nag sama caméraman bi sama étudiant bi sama ah sama lan bi borom bag bi devise la dagg kenn du moom ay da Dakar ara yàlla na la jig ah ay diplôme diplôme topp ci di ñaanal ñëpp jàmm rawatina diaspora bi Omar sama xarit Omar ba Cheikh ba maa ngi lay nuyu di la ziar ba kenn du moom ci man Toutia Sarr maa ngi bëggee ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp peace